ak tedd nga yooyu nga xam ne xasida daf ko lamboo te bëgg jullit ñëpp jariñ ca biir xasida yooyu moo tax mu wax ne xasaidam yi moom ci kaawteef yonent bi sallallahu alayhi wa sallam la bokk xasaidi min mu'jizati al-muntaqa salla alayhi man hadahu wantaqa kon ni alquran nekke miracle yonent bi ni mu doon xare jant bi weer wi yonent bi sallallahu alayhi wasallam yooyu mu doon def yépp sëñ Tuubaa ne na idem yi ci la bokk lu tax lay woowu sëriñ Moussa Ka indi ko wax ne la yoneen ba daawul way te xam ne bindul xaraf la jagleel sëriñ Tuubaa ba muy taalifal Tuubaa la xassaana daa wax gën gi yoneen ak kaabu la Seex Bamba def ci gis bu jébbal ko waa Tuubaa waa kaabu waa xasaan ak ñoom seen ñoom ñëpp gërëm nga rabbul arsh ngir taggi Moustapha wedam loo nga taalifkat ya askay sëriñ Tuubaa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 من له البرايا والفعال والزمن مولم جند الله الغالبين يب خصائص فاسنا دل سين خول خامني فاسنا دل بير خولو كوريل سون بروم يب ملايكي يي خصائص فاس دل سين خول ناخ مغايو مبنوم شيخ أجريايو اك ريايو مبنوم شيخ القديم خصائص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 خصائدي نعم قد فل وكل مدائح له وصلوات فوق العبادات معا ودعوات نعم قد فل قصائدي مجنة كوين بولم جامع يلا يب وكل مدائح له وصلوات فوق العبادات معا ودعوات نعم قد فل قصائدي مجنة كوين بولم جامع يلا يب يمكن أن بولم نعم نعم قنيت بن نعم قنيت دفل نعم قريري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 di qasida gu yeme muy jalibatul maraqib señ touba neena na li qasida gi man ci nit kudul man mënoo ko ci muy jalibatul maraqib lim man ci nit kudul man mënoo ko ci qasida gi day doli bëgg señ touba qasida jalibatul maraqib day doli bëgg señ touba xam ngeen ne dégg nga sëriñ tuuba di ci wax ne na nga may kep kuy jang gi lu ko ñëpp di ñee ay kemam di ñee xamne ne day jang bu bu set yow mi koy jang li ngay rawee keneen ku dul jang señ tuba wax na ko ci xasida gi wax na it ku koy jang nang ko ku am xasida gi ak num ko amé nang ko ci defal texeg aduna ak alakhira na nga def ci xasida gi yow yalla nang ci yar ko xamne mi ngi koy jang bi kitabati rabbi rabbi kullu mutali'an li wa ci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 ba xam suñu borom nungu nako wala nangulu ko motax def nañ ci manam mm, mbir ngi ci yo xamne man nga ci sété ba xam sa talibé it nungu nañ ko wala wuñu ko sëñ tuba bi mu ko talifé daf ko sanni ci géej gi wax na bu fekk suñu borom nungu nako ma ngi ci roy muhammadul jazuli ma ci dalailu ghayrat bu ta yalla ngo ne xassidi gi del ci wat xam nga ne ren ba diwen ben sandar mu ci wax musa mo for xassidi gi indi laat ko sëñ bi fekk na nek na ci géej gi am at xassidi gi toyul yaqul dara ko ci kon xassidi la go xamne it mi jali betul malaikat sëñ Tuba nee na qad qutta lii bil alifil maxfiyi nayla al maqaamaat wala bi tay al alifil maxfiya gu dog googu rek gu nëbb googu yàlla wamatal na ma ci mbooleem maqaama yi góor yàlla yépp nay la maqaamaati la wala bi tay ci taxañ nga xam ne ay at yu yàgg yu sori laa ko waroon a dox suñ borom taxañal ma ko indil ma ko xasida gu yéemi jalibatul maraari kon gis nga li ci nek واجعل بجاهه العظيم قطيا على رداك قد ارحت ارحت مطيا دفل ما سما قصيدي يي سنجرم سنغرم لي غن ري يو سن بوران واي نخ تلايم واجعل قراطيسي به وقلمي xayra ibadatin wa xayra sulan defal sama fegui sama bind sama xalima muy gën gi jaamu yalla ba nopi di xayra sulam di ras bi gën bi gëna gaaw ci jallale ab jaam ci mu egg ci boromam defal mako ndax ci la yam xam nga ne qasida nuru daare ni li ci nek sëriñ salih mbakke yalla ko yalla doli ay xéewal daana wax ni kum gis nga di ko rek am na ci yow yaakaar muy nuru daare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 nang ma def man ahmadu bamba sama nek ma melni yonent yep def sama araf yi mu melni ni jëfi yonent yep ak yi waju bax rek ni mu mel ken munu ko dab waxuma nak mu ne na ko def mu melni ni yi yonent yi nuru darin bu sëñ tubaa ma sa wax sama téré ba rek mom lay wax bu ko ma sa fatte fen day melni ku tagok sagom ngir téré bi ya ci nek ci nuuru daara yi ci ay ngëneel ak leer yuy defar xol ak li yéegi nit sëriñ touba nga ci wax wax yu yéeme xamné ci biir ma ngay xamlé né lépp luy lëggën ak caaxaan boromam faral nako ko te dogal yi yàllay dogal yépp ci mbéktém rek la amee xasida gogou sëriñ touba نجي واخني وات علمي داي دي فوق كل ماء بركه كمطر السماء دفال سما خليما سما داجي مو كاوي ميب نخ اوبكو باركي با ملني نخوم اسمان يا من مدادي جعلت كديما من معه قد شهدوا من خدما يو كت يلا نغا ديف سما يو ميغا خامني داجي آه، مو ملني دراتي ني اندون اك يونتي بي صلى الله yi xeex waccal kitaabati lil jinaani muusilatan muniratan janaabi na def sama xasida yi muy yóbbu àjjana kon xam nga nga def sama xasida yi muy yóbbu àjjana waccal tawaalifi bil muxtaari junnata kula xar yaam ni naar defal ma sama xasida yi muy fekk képp ku koy jàng ci sawara waccal tawaalifi bil muxtaari junnata kula xaar naar nay pakku képp ku koy jàng ci sawara muy jàng xasida yi nga dox sa diggante xam ngeen ne dañ gis xasida taxamis sëñ tuuba nee na boo fekkee fu koy jàng rek wala nga di ko jàng jaamu yàlla juróom-ñaar fukki at la te dafay far ay bakkaar ni garab gu wow mbooyee ñëw muy ruus ñu xob yi ruuse noonu la say bakkaar di ruuse xasida taxamis ca nekk gis nga gis nga ni mu ak yi dajale saana illahi bil munajahati gis si wàllu mu wax ci tarjumaan ji kawee na lu dul alquran ak hadis saana def na ci ma tàggoog nasaraan yi ñoom ñooy sàkku di jëm ci man ci lu ma bégloo waaye man tàggoo na na ci ne biir xasiida googu di saana illahi bil munajahat yàlla defal na ko ci yoolu bépp xeex bu yonente bi sallallahu alayhi wa sa xeex ci adduna képp ku mas a xeex ci lislaam yool boo ci am yàlla defal na ko ci biir xasideg saana illahi bi dun ay jaati te xes nan xasin la teg mooy mooy mooy gàllaaj gi gën a baax muy saana illahi day aar nit xis nan xasin min makaa idil aada daf lay aar sa digganteeg noonu yi ñu mën a bët am fenn fu ñu jaar xasee walaw yaxsibuka a naas a gis nga ko ni man kon mën na nuru lu gàtt ak li dajale ci ay yiw te nit ñi sëñ Tuubaa fàgg kon Cheikhul Khadim lépp lu mata am nit ki wara am rek am na ndax ci lolu la yam dedet nga def sama qasaidi yi waccal xurufiya ujuran baaqiya bilantihain lil jinaani raqiya dafal sama xaraf yi muy ak sax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 kon lu ñuy foyé lu mata bàyyi xel la lu mata sétantal la yi mu dajale dafa bari da ca nekk ci zahir la muy bari bari ba nga jàpp ne moy mbir ma la ca nekk ci batin ko upp muy khasida te loola kat ku ko settantalut te sellaloo ko doo ko manam nga bamma ila amali badri ya baaxin li yujlu qadri kon xasaid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 wajfal bihi qatiya sururan abada li jumlatil amlaki ya man ubida na nga def sama xasida muy mbégtey malaka yi ba faw kon bu ñuy jàng xasida nit ki warna ko teelu ki jang xasida it amena comportement bu mu wara amé bëri bi mi jang xasida it war am nu mu wara mel ndax malaika yi dañ ci vek te Serigne Touba waxon na ne bu ñuy jàng xasaid yi yi ngir diko deglu bu ñu bu nek feron fep suuf dana am malaika yu amut bu ñuy sama xasida yi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 wala bu ko mbooloo defee jublundoo penku jëlandoo ci yiw yi malaayika yi koy béggee wàcc ga ni wàcc ci ba kon mbégteem malaayika yi ba faw wacc alkitaabatiya bushaaratin taum lil muntaqal lasi lahu sirrul qadim na def xasaayid muy busharatin te du mbégte mu sax dakk ñeel yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nga ne fuñ yëkkati ak qasida yonent bi alayhi salatu day bég ndax yubashiruka al baaxi bi xati karamatan wa in kuntu an ardil madinati sana i sëñ Tuubaa nee na fu ma mën a nekk lu mu sori sori doon ko sori naa madinatu mun a war a it sama mbind day bégloo yonent bi sallallahu alayhi wa sallam te xam nga muqaddimatul am daax sëñ Tuubaa eh, am na mbir yu bari ci waaye sëñ Tuubaa jàng na ko ci Gabon diggante ñaari îles yoo xam ne toll na ni diggante Ndar ak Ndakaaru sëñ Tuubaa nee na